naa bu bëggee ci ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg ñu ngi leen di nuyu baax di leen di jaajëfal yéen ñu safoo di seetaan saa su ne Equivox TV comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ñëw ànd ak yéen ci seen xibaar ci seen yëglekaay mm-hmm. ku ne na gis na sunu làmb tey ni mu ñëwee tey ak les arènes waaye laata loolu dañuy nuyu tonton Babacar mi ñu bokkal balaato ba pare soxna Penda li ziar si loo ne sama jàmm baa yaa ngi am jàmm bu baax waa sant naa yàlla na ko su bësi ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw waaw di nuyu ñuy suivre ah, à travers Equivox TV suñu mbokku téléspectateurs yi internautes yi amuñu seen faya ah. yàlla na seen jàmm yàgg penda. amiin ñu bokk ko. voilà. balaa ñoo ñëw si xibaar yi dañuy dem xooli loolu suñu làmb ak les arènes indil ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 14 juillet 2021 dañu ñëw ak njëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fesal wajëg wala ka ca xëy fes kenn la muy Bombardier bu Mbuur Bombardier nag ka mu xëy di dànkaa footi mooy Balla Gaye numéro 2 Bombardier dana ko daal loo man ak loo xam na ko def ndax man pare naa ci côté yëpp fi mu nekk nii moom lu toll ci fanweeri sëriñ Bombardier nee na yor naa ko te ñoom ñëpp na nañ ma la nga xam ne moo di victoire kon daal nee na ko li am ba des daal mooy boo bëggee dégg-dëgg yow Balla moom lu mu mën a doon muy doole muy bëre wala muy xeex wala wàllum ñaan pare na taxaw di la xaar te ndam munu wax a wax a wax ba duma ko am ci yow te li ma intéressé lenn kese la mooy victoire loolu waxi Bombardier la keneen koo xam ne nii tamit mu nga xëy di dankaafu kam ko séqal muy Siteu tarkindaa bi moom moo war a bëre Papa Sow le premier août Siteu nag la mu xamal papa démb daal ba presse ba demee fekki ko fa nga xam ne moo di lamsaar nga ne ko li am ba des daal jàppal ne man ak ca géew ba keneen dugg fa comme na ko waxe ne ko yoonu Modou Lo newu ci tey suba waxi noppi waaye la am ba des daal jàppal ne man Siteu bagaar moom wàllum xeex lu ma man la te itam nag maa ngi koy jàng de te itam lama ci yor doy na ma sëkk sëkk sëkk te buñ ca demee ba dikk danga xam ne ba si góor moo koy bay loolu waxi Siteu la jëm ci Papa Sow ñeneen ñoo xam ne ni moom bu fekk fekkonte ne maanaam dañoo bëgg combat jox nañ leen ko muy maam Mor doomu Faas ak Cheikh Super Jamono nekk école de lutte Mor Fadam que décroché seen combat nag du kenn ku dul jamaïcain moom daal moo tëgg boobu combat beneen bu combat boo xam ne tey lay am fa nga xam ne moo di ci arène national que ko tëgg moo di Mor Mbay borom ngéwél gi production mu war dox ci diggante ka nga xam ne nii moom moo di armée bu ngéwél ak ka nga xam ne moo di bébé daaru loolu yëglikaay bi ñëw na fi am na ci làmb joo xam ne amoon na fi bu yàggul Gueye mel ni ki nag mbir yooyu ba mu amee ay xeex ak ay coow moo ca toppoon ba mu amee nag ba passé waa CNG moom la ñu def maanaam daal woo ñaari kaay wala ñu jàpp ne dañ fa doon turbale déglu leen bañ ca pare nag am na ñoo xam ne moom aj nañu leen muy ka nga xam ne moo di bébé julde ak ka nga xam ne moo di njaaxum ñoom nag ñu nga nekk école di Cheikh Mbaba ak yeneen xale yoo xam ne daal mbir mooma laalaale na leen mel ni koon daal fi mu nekk ni moom CNG nangootuñoo bàyyi kenn ci làmb ji nga nekk fi di def li la neex ñu di la maanaam saa yoo ko defee rek la ko te itam duñ ci xaar dara koo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne xëy na tey ñëw muy les arènes ka fa xëy nag di wax ndax fan yi ku ne dégg nga Balla Gaye numéro 2 mu ne Modou Lo sañu la taxaw ci sama kanam naan roi des arènes moo ko yore nee na sax reconnaître ko te moom dafa dépassé mbir yooyu mu mel ni ki nag tontu ba moom ñëw na ci kaw Balla Gaye ka xëy di tontu moo di biram ñi nga ma nga xam ne moo yore Modou Lo biram la mu xamle la mu xamal Balla daal ne na ko yooyu wax yaa ko tal Modou amul sa jot tey suba waxi noppi te la mu doon doon na ko ba pare te du yow yaa ko koy der teree doon mel ni kon daal biram ñu moom xëy na tey ngar daa joow yëgle paay gi mi nga xam ne nii moo di les wax fa la nga xam ne nii daal wala boog tontu fa ka nga xam ne moo di Balla gay numéro 2 keneen koo xam ne ba tey mu nga xëyaat ci bi muy Bombardier diggante mag ka nga xam ne nii nag moom di ka nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 mbay booy ma nga xam ne nag moom moo di coach su Bombardier daal la mu xam ne daal nee na Bombardier daal pare na ci plan yëpp fépp fu ko Balla gay woo daal wala wala fu mu baat daal duñ ca yeggee maanaam mu kupp ko loolu mooy wax ji Siteu itam daal xëy na daal di wax ak Papa Sow ne na ko day li am ba des daal yónnee na ko message boo xam ne bu foor la ne na ko day combat bii daal combat la boo xam ne dafa am enjeu lool nekk combat boo xam ne bu particulier maanaam ci man combat la boo xam ne daal bu ma fonk la Siteu daal dem dalal na ña nga xam ne nii ñoo di presse ba wax na ca Equivox TV ña nga xam ne moom la ñuy ànd moom tamit wax nañu ña xam ne tamit ñoo koy ja nag kañu ŋàññ rafetlu ko moom moo di Modou Lo vidéo yooyu moom ko yebu xaar ko ci Equivox TV mu jili sec ma koy tëggal ak yeneen mbër ya nga xam ne ñu nga nekk jàmm gën ak i supporteram parce que dañoo jàpp ni Modou loo maanaam fayut sitta maanaam bor bam ko lebaloon bi muy bëree ak Balla ndax ku ne gis nañ ne ca Siteu sonne woon affiché wu jàppale Modou Lo ci côté yëpp kon Modou jàpp nañ ne même bu fekkente ne waa parcelle la di ànd ak Papa Sow itam mënoon naa doxale neneen wala mu waxee neneen loolu mu nga fa nga xam ne moo di ci Equivox TV di ab vidéo mel ni kan daal boo bëggee dégg-dëgg moom le premier août moom ku yebu xaar combat boo xam ne bëri na coow enjeu ba itam bëri na lool kenn koo xam ne xale la boo xam ne mu ngay màgg ci làmb ji muy Cheikh Tidiane Niang yëglikaay bii nga xam ne nii moo di les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Cheikh Tidiane daal daa mel ni fi mu nekk nii day lit avec frappe ba mu ngi cay wane boppam bu baax a baax six combats six victoire kaay bi nee na daal boo bëggee dëgg-dëgg Cheikh a ngay yot ndànk di màgg de kon nag nan ko bàyyi xel ki nga xam ne moom saa yu bëggee màgg taxawaat muy móot jabu yoof ndax nag examen bu mu am da koy rate bari ki dem bu ci mujj muy digganteem ak caat fañ ko doon xaare ngir bu daanee caat jàll ca kaw a kaw móot ja daa ñàkk combat ba loolu yëglikaay ba ko muy ki nga xam ne moo di Youssou Ndour bu école de lutte Balla Gaye moo tax nag ba mu daanee bébé julde tey li mu xëy wax fa nga xam ne moo di les arènes nee na daal ay adversaire am mënta génn ci ñii ka nga xam ne moo di faraa bu parcelle ak ka nga xam ne moo di jën kayre bu sumbe jun ñii daal la Youssou nduur sampal ndën nee na daal lemba des moom ñii moom fu ñu jaar ñu bëre ak moom ci nii wala ci na waaye yëglikaay bi nga xam ne nag moo di les arènes tey dikkal nañ ci ay photo yoo xam ne yu fës a mel ñoom abu ku kuwen sak ñoom taqe mbër yooyu yëpp démb daal wan nañ ñu leen ñu wër Siteu Siteu di wax ak presse ba waaye tamit di yëngal aw yaramam maanaam di waajal le premier août kon daa mel ni gomis le premier août moom yal nañ ko fekkee te tal ko buñ ca yeggee da nga gis lamb ju doya doya doy waar waaye balaa loola tabaski mooy jubat gomis yal nañ yàlla may xaruñ tabaski te ñu fekk ko te tal ko ay Aïcha comme ni ñu ko joxee woon sànq rek dégg ngeen ko ñu ñëw ci wax ñu ñëw indil leen li ñu sunu suñu làmb indil tey ak les arènes suñu làmb nag ñu ñëwee tey am na doole ndax kooku di Bombardier moom dafa mel ni dafa engagé ndox boo leen gisee ci titre bi nee na j'ai plus de 30 marabout ils m'ont tous assuré la victoire dafa mel ni bal dafa mel ni Bombardier moom pare na physiquement mentalement ak moralement tonton Babacar lu looloo si xalaat. waaw bu loolu moo ko déggee si tubaab maanaam 30 marabu fanweeri sëriñ. waaw moom nee na ànd nag 30 marabu instant bii nii. ko assuré victoire waaw. loolu moo lay wan ne kon ça veut moom combat bi fonk na ko ah. waaw mel taxaw na si defe naa ne ku jël fanweeri nit 30 personnes pour ñu lay penda mm. dina metti trop trop ah, dina tàng parce que li tax mooy lu may wax rek ñoom ñaar ku ci ne mm-hmm. actuellement ndam li mu ngi ci sa poos mm-hmm. mais làmb nag li si garaaw penda mooy ñaari ndamay dugg mais mm-hmm. benn mooy génn saa yu ñuy ñëw ca stade ba wala bu ñuy waaja dem ku ne da nga man la di fëgg sa dinde maay daan waaye saa bu ñibbi jotee da nga gis ku ñu la nga ne ko muñal yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye xam naa daal ñoom ñaar mm. li ma xam ci seen carrière dama leen depuis ma leen di suivre mm. ba fii ma la koy waxe du ñu ay ragal du ñu dellu ginnaaw te lu ñu jàkkaar lool pour ñoom dañ lay effacer jàll. est-ce que nga yaakaar ne boobu kii Balla Gaye moom amoon combat comme dafay faral di wax day joxe ay minutes. Mhm. ak ni Bombardier ñëwee nii ne am na 30 marabu. est-ce nga mhm. yaakaar ne loolu tiital boobu Balla Gaye wala. waaw parce que lii yëpp maanaam bataille de communication la xam nga fi fi ñu toll nii. Mhm. actuellement ku nekk da jiima euh, maanaam. mu uh, père njaayu sa morom maanaam jéem ko nax jéem a dugg ci boppam mhm. maanaam euh, maa nga jéem a dugg ci mentalam pour jaxase ko mhm. loolu maanaam actuellement ci lañ toll mhm. maanaam communication bi ngay gis saa yu xëyee gi dégg kii wax lii kii wax lii parce que démb la wax na Bombardier wax tey Bombardier gën a na wax parce que loolu ci ci la bokk ah ci la bokk ci làmb ji la bokk mais nag réalité bi wala dëgg dëgg dëgg dëgg làmb ja bés ba la buñ ca yegee barbit génn seen diggante su ko moom lu waaye doon jaay fa lay lambe. Balla Gaye moom joxeegul minute wala heure yi daan joxe. waaw Balla moom euh, déggu ma mu joxe minute de waaye daal li ma di li ma gis ci moom. Hmm. ak li ma li ma gis ni ma gis keroog mu engagé ci boo kaw Bombardier. Hmm. ça veut dire que moom jàpp na ne arbitre soufflé moo fi bàyyi Bombardier. Hmm. loolu la jàpp. te Bombardier nee na ko boo boo boo yéexee ba yéex ñëw moom su ma la jëlsee moom. jàppal dama lay dóor nga daan. ah kon Balla am na problème. ah wala Bombardier am problème. ñaar ñëpp am problème ñoom ñaar ñëpp waaw ku nekk da dugg ci gudd. a ah, kon ñu xaar ba jour ji ba. incha allah rabbi incha allah. Mm-hmm. waaye bu ñu si paree dañuy dem ci ci Siteu. Siteu mi ngi dànkaafu kooku di papaa saw mm-hmm. waaye nee na moom xeex yëfam la du bàyyi da ciy gën a jàpp ba mu dëgg këj. waaw parce que combat boobu li tax ci ta waxee noonu démb presse bi yëpp dañu demoon Lansar fekki ko fa. soo déggee mu wax loolu parce que ñu bëri dañuy wax ne ci côté bagarre Papa daf ko dàq xeex. ci côté bagarre xeex noonu. làmb nag loolu daf ci yooyu yëpp mooy li ma la wax rek communication bi si xam nga Siteu tey bu ne moom bon bagarreur la maanaam xeexkat la. Mhm. parce que Siteu itam day day xeex. te yor na góose bu doy waar. boo xam ne saa yu la ko dóoree sa lamb man naa yàqu ah, waaw tarkindaa la tarkindaa xam nga du dellu ginnaaw papa Sow daa nekk benn mbër boo xam ne nii ci lewaatoo nii loxo yi dem di ñëw mm-hmm. daf ci ay ci xeex mm-hmm. kon moo tax xam naa ne si tey itam ñi ko yore ah dinañu jéem a liggéey moom si loolu ba nga xam ne daal le sursis ku ci ne ci ñaari mbir de ñoom ñaar daal actuellement boo bëggee dégg-dégg penda bëri dem bi ma demee centre fële BCAO fekk fa Papa ak ñoom Modou Lo mm-hmm. dem ma demaat Lansar fekk fa Siteu ak ñoom Kuwens ak àndal ça veut dire ñoom ñaar ñëpp pare nañ pour le premier août. combat bi ci biir combat la bu doy waar la le premier août na nga ñëw stade na nga ñëw arène nationale nga. ñaari a waaw ñaari xale lañ euh, mën nga ne sax xale la ak mag parce que li tax mooy Siteu ku ne xam na ne papa moo ko mag mais papa Sow nekkul mag mu bàyyi benn xale ak yàlla mhm. parce que li tax mooy dafa sérieux si entraînement te ay bañkat lañ waaw te itam euh, ba mu nekkee si làmb ba tey papa mosu ñëw si làmb nga ne liggéeyul mhm. Siteu nekk xale boo xam ne tamit su liggéeyu kon tey niveau bii mu am si làmb du ko am bay bëri kasa yi muy bëri mhm. bay bëri ak mbër yi muy bëreel ça veut dire que kon combat la boo xam ne le premier août moom Papa Abdou a doy waar kon le premier bàyyi xel la nañ ko fekkete tal ko waaw bu ñu fa jógee dañuy dem si promoteur boobu di jamaïcain. Mhm. Euh, mu taxawal benn combat bu am solo ci diggante Mame Mor ak Cheikh Super Jamono. Mhm. ñuy ñaari xale. combat boobu tamit dina xaw a tàng. waa dina tàng xam nga jamaïcain suma rakk la suma xarit la maa ngi koy nuyu di ko siyaar. Mhm. di nuyu production yëpp ñoom Paate Gambia. xam nga ñoom Mor bu parcelle parce que jamit mu ngi dégrosé ay combat bër gi dem taxawal na Pape Ndoye rakku Lagros ak Abou Niassé. bar doomu ndeyu Sitta tey mu xeet indi Mame Mor doomu Faas nekk école de lutte les tigres ca mbay gi ñuy nuy mbay gi di ko ñaanal yàlla wér ak ki nga xam ne moom mooy seex si père jamono nga xam ne combat bu mujj ren da ko ñàkk euh, muy combat boo xam ne kon bu ko jam taxawalee te Mamour jóge ci ndam kii jóge ci defet ah kon jamekee itam tëgg na combat boo xam ne combat de feu la combat bu nar tàng lay doon. kii day gën a bëgg a fësal boppam. waaw kii jóge ci defet bëgg a. ñëwaat ñëwaat ci rang bi. mën naa nekk combat bu tàng bu metti waaw. Mhm. Mhm. Mhm. Euh, boobu la tamit di Mor mbay Euh, foofu ñu war di war am foofu ci arène nationale mhm. armée bu ngéwél ak euh, le suuf bébé daaru waaw armée bu ngéwél ak bébé daaru waaw ñaari ndaw tamit waaw loolu tey lay am Mor mbay moo ko tëgg ngéwél gi production di suñu frère muy làmb joo xam ne tamit ci arène nationale lay amee tey ci mercredi ji mm. parce que saison bi ren ni mu demee lamb yi ni mu bëree moo tax ministre bi bi mu ubbee lamb ji ah mercredi sax gars yi di ko tëgg ubbiwaale sa fa nga xam ne ni moom mooy stade Iba Mar Diop gars yi di fa tëgg léegi nga gis ne euh, arène nationale day tëgg Iba Mar di tëgg mercredi yi tamit di am ay lamb Mor Mbaye ñu ko ñaanal yàlla lambu tayam ji diggante armée bu ngéwél ak bébé daaru yàlla na si génn ak jàmm waaw waaye tamit waa CNG dafa mel ni dañoo ñëw ak doole ci arène bi de. Mhm. daa mel ni ñoom kafatuñu kaf kaf luwuñu. <laughs> kaf daa wóorul de. <laughs> ah daa ah, dañoo fu mu baaxul de. Ah. Ah. moo tax it bii paa ñi ngi wane seen bopp de. daa mel ni fooyee caaxaan lañ bëgg mu jógee ci làmb ji de. ndax dañoo suspendre kooku di bébé euh, bébé julde ak njaaxum. waaw parce que waaw loolu parce que loolu boo ko gisee. Hmm. li ko indi mooy combat Youssou Ndour ak hmm. bébé Julde moomu. Hmm. dafa amoon ay jàppante yu ci amoon ca biir Iba Mar Diop. seen seen nag dañu yor ay superviseur yoo xam ne ñoom dañuy ñëw li leen di indi mooy làmb ji la ñëw superviseur yor nañ seen ay caméra ak seen lépp maanaam loo fay def ñoom ñu ngi toog di xool. bu paasee nag ci lañ lay convoqué wala ñu convoqué waaye écurie bi tegal la vidéo yi ngay xool xam naa nag bi loolu paasee ci lañ def jàngat génne li nga xam ne nii moom la ñu war a teg leen comme ay daan mooy suspendre leen ah loolu nag man Babacar du du ma la lu ma gën a la ndax su ma sañoon duñu suspendre benn mbër mm. waaye tamit lamb ji il fallait que ñu organiser ko. benn mm. lépp loo bëgg mu dox si àddina te tegoo ko ci yoon jubal ko. mu am ay lu ñuy tere ak lu ñuy bañ ça veut dire jàppal ne anarchie lay mujje te anarchie moom baaxul te làmb yi tam wax dëgg yàlla des fois ngi si ay comportement yoo xam ne dafay jaadu su comportement yooyu amee seeni borom nga wax ak ñoom indiwaat leen ñu jéem a tegu si règle yi pour que affaire yi mën a dem parce que làmb nekkul loo xam ne ni xeexu mbedd la ba lu neex waaye def fa ab géew la dañ ko organiser ay heure la ay minute la temps boo war a bëre la est yaa ngi dégg kon loolu lépp ay règle la am kon nag ku jël gëti yi ah buñ la suspendre tamit li ñu ci mën a def mooy ñaan CNG bu leen mënee jégal jégal leen parce que tamit les a suspension bi moom wàcc na ba pare loolu la suñu làmb xëy wax. dëgg la waaw. Mm. waaw les arènes. ñu jàll ci les arènes ñu mm-hmm. ñëwee tey. Mm-hmm. Euh, ci Modou Lo mm-hmm. tontu boobu mu tontu Balla Gaye waaye dafa mel ni kooku di Birane ñi ngi moom moo tontul euh, kooku di Balla Gaye. moo tontul Modou Lo. Modou waaw kooku di Modou waaw parce fan yi xam nga Balla dafa génn. di wax que ni Modou moom roi roi des arènes gi mu doon moom Balla moom Modou du ko ko wan ci kanamam. Mhm. fan yëpp wax jooju mu ngi jóg ba am ay wax yu ciy jóg. biram ñu ngi nag ku ne xam na ne moom mooy ansaw Modou Lo mhm. yore ko boobu ba tey moom nag moo xëy tontu. waaw nee na moom Modou Lo ak lu mën a xew roi la. <laughs> mooy roi des arènes. waaw nee na loolu Balla di wax ñoom intéressé wu leen waaw loolu nag bon euh, damay jàpp ne rek si benn côté. Mhm. xam nga Balla moom saa yu wax si saa yu génnee ci làmb di wax bu waxee nga ne li waxati. loolu moom yëpp xamee nañ ko ko parce que moom communication wu làmbam du sedd day tàng ah, waaye nag comme la ma waxoon laay waxal rek Modou c'est le roi des arènes parce que li tax mooy liggéey la ba jot ci mm. comme ba nangu ko ci Yékini mm. Modou noonu la liggéey ba jël ko ci Eumeu Sène ndax bul fàtte que ni Eumeu Sène dafa daan Bombardier te di nekk roi des arènes deuxième fois ci Balla la ko jëlee moom Bombardier nekk roi des arènes muy deuxième mm-hmm. après moom Bombardier moom muy doxaat di doxaat ba Eumeu Sène bëre moom nangu ko ci moom Modou xale li dox ba mu bëri Eumeu Sène nangu ko ci moom ko mm-hmm. mooy li am waaye nag Balla moom mbërëg xam nga duñ mayante dara teg ko ne xam nga ne Balla moom mm-hmm. ay moom su bëggee wax waxam da koy wax mm-hmm. xam naa moo tax mu xëy ko waaw waaye ñu ngi gisaat ne Mbaye Boye coach Bombardier boobu nee na Bombardier pare na ci côté yëpp Bombardier moom dafa mel ni moom physiquement mental moom dafa mel ni pare na de waaw pare na gën a wóor ndax bis ba daa soritu le 31 daa sori pare gën a wóor loolu mbay buy wax moom mhm. defe naa fi nekk nii ne li olof naa la si mbaa dem tool rek pare dafay gën a wóor <laughs> ah lekk avance ay weer mhm. loolu ma at mhm. ñu naan combat bi combat bi combat combat bi su ma juumul taaw la taxoon ba ñuy wàcc màggal Tuuba <laughs> yàgg na yàgg na pare que léegi moom moom un an fi mu nekk nii moom kon dama la ay fan a si ku parewul ba heure bi ah, dootoo pare ah ku pare ba heure bi moom gën naa ah, dootoo pare te kon pare ñuy mhm. gis fii tamit ne Papa Sow kii Modou Lo euh, dañoo gisoon ne euh, dafay jàppale a Siteu da koy jàppale ci combat am am na combat bi ñu ko fi taxawu woon euh, ba ñëpp gis ne da koo taxaw mhm. mais combat ak Papa Sow dafa mel ni Modou Lo dafa féete ci Papa Sow de ba ñëpp xam ko ba ñëpp gis ko waaw loolu moom am na parce que Modou Lo Papa Sow ñoo dëkk ñoo ko parcelle. Hmm. Euh, Modou Lo jàppee Papa Sow mag ñuy ànd waaye Siteu ak Papa Sow dañu am ay relation yu particulier hmm. wala waa Siteu ak Modou Lo du moins yoo xam ne yaakaar naa su ma juumulee su ma bañte juum dafa mel sax laal nañ jëm ci wàllu famille kon defe naa ñooñu tam lañ seq lu am solo la hmm. ñoom ñaar nag muy Modou wala muy Siteu kenn waxagu ci wax boo xam ne buñ naan ëy la mu wax parce que Modou dégg guñ ko mu wax ci donte gis nañ ko mu ànd ak Papa di liggéey di entraîner parce que ñoom ñooy ànd boobu ba tey ay at ci li papa wax démb. c'est tamit démb bi ñu ko laajee question Modou Lo nee moom loolu amul lu mu ci mën a wax parce que li tax mooy mënuma tagg tey démb nit ki tey ma di ko xaar. Mhm. loolu tamit defe naa waxi nit la waxi foofu li fa am mooy nañ ko teg ci cadre sport rek waaye fans yi nag xam nga fans moom fans la. waaw te xol day sot. Mhm. waaye nañ ko teg ci cadre sport parce que diggante Modou ak Siteu defe naa ñoom ñaar ñoom ñoom ñoom ñaar kese naa seen diggante lii du ko yàq. ci li ma foog. war koo mën a yàq sax la wax wax ci ñoom ñaar wax boobu la après combat ñu jàll ci Cheikh Tidiane xale boobu nga xamante ne daa mel ni nag moom mi yoon bi mi ngi ñëw. ban Cheikh Tidiane ñu ngi naan xale ma Cheikh Tidiane ñaar. ah moo la moom mun nañoo wax ne xale màgg na waaw waaw xale baa ngi ñëw mi ngi si yoon bi. si macha allah waa mi ngi si yoon bi di ñëw. yëglikaay bi indi na. waaw am na solo xale bi lu jar a bàyyi xel la mi ngi si yoon bi di ñëw. <laughs> <laughs> Mhm. Ah. ak Modou Dia. waaw kooku daa mel dafa ratewaat examen bi passé de. bien parce que des fois na combat yu muy mu rate ko. pour mm. ki démb la preuve bi ci mujj mooy diggante mhm. ah, boo ko ratee ratewaat ko ah dañ sens rek xëy na di am ne amaat sens bu bëriwaat ndax Modou Dia xale la boo xam ne. bëri na mbooloo macha allah waaye Yoff bëgg nañ ko te itam ku mën a bëri la mhm. mais nag kenn dafa daje caat boo xam ne tamit dafa décidé ba yàlla def caat am ndam kon mu jël dañ koy wax rek mu dem dafa rujiwaat jéem a utaat beneen examen. Mhm. waaw bu yoon jeexul wax suñu jeexul wala ko. xëcc bu daggul dikk. waaw loolu ah, na jàpp rek dina ñëw incha allah. <laughs> waaw loolu de loolu la ñu leen indiloon tey ji mu nekk ay xibaar yu am solo ak mhm. sunu làmb waaw. waaw kon waaw ah, day noonu la demee woon. suñu laa ma les arènes. kon nag damay tàggoo bàyyi la nga tëj rek. Ah, waaw voilà mais maa ngi kontaan ci maa ngi la gën a kontaan tonton. borom benn tali. mbaa <laughs> mbaa benn tali mi ngi neex. waaw mi ngi neex moom. Ah. waaw. ok ça noonu la demee kon Gomis nee na nag da nga ko ko ragal. waaw da ragal xool Gomis. <laughs> kon gars yi ñu ngi man fi may tàggatoo tey penn fenn la rek. di ñaan jàmm Sénégal. di la nga ñaanalaale borom kër yi ñu am xaru tabaski. tabaski bi ñëw na de yi laa bokk. Mm. tey sama bopp mbay sama wu tànk kon yàlla na ñëpp am xaru tabaski waaye man yàlla di ñaan jàmm Sénégal bi ñu jëm. amiin ah yàlla nañ ci dugal bismillah rahmaan rahim génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin. amiin yaa dégg liñ ci def mu di jaamu yàlla parce que tabaski encore une fois nañ fàttali que ni jaamu yàlla la maanaam lu ñu suñu boroom sant la muy na boo xam ne bu war a def la mm-hmm. waaye nag nekkul loo xam ne mbirum concurrence la nekkul mbirum defante déedéet oh, ko xanaa ñu jigéen ñi ñoo ko moom ah non non non même yi sax ñun ñëpp ah, man sama bopp laa koy commencé maanaam nañ maanaam li nga xam ne moom lañ ci suñu borom sant xam nga ndigal dégg na si Ibra Fall doon na wax ne ndigal caabi la mhm. su ëppee lu ubbi mhm. te boo ko yootaane da ngay yàq kànnaar ba kon buñ la diggalee dara da nga koy def ak yam ca def ko ni mu waree yaa ngi dégg mhm. kon ndigal boobu ñu suñu borom san yal nañu yàlla may ñu am luñ ko defe def ko na mu waree te buñ ko defee yal nañ ko suñu borom bi nangul ñu tëbaski ñu yegg ci jàmm génn ci jàmm barke bi sallallahu alayhi Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre Equivox TV à travers le monde rawatina ñi nga xam ne tamit dañuy jàpp ci Babacar parce que daa bëri gars yi xam dañuy yëkkatee yëpp yi ma ko jox may sol ah. ñooñu fi ma leen fàtte mais Mor Ndiaye depuis Italie non safurla États-Unis d'Amérique Mor Ndiaye maa ngi lay bëgg gis naa yóbbante bi yàlla na sa jàmm yàgg Mor Ndiaye depuis États-Unis Liiru Jaan indi na yóbbante bi Liiru maa ngi koy bëgg champion boobu moom it mu ngi waajal diggante ma wulli di nuyu ñëpp mais Mor Ndiaye vraiment gis nga montre bi daaw moo ko joxoon montre bu cher Mor Ndiaye depuis États-Unis mm.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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk